Nous bëgg ASC bi moyen financier en quoi faisant nous ne am frais de réaffiliation bu muy fay boo xam ne frais réaffiliation, da koy fay structure nationale nous ñun ñu ne la affiliation bi day gratuit non euh, euh, instant bi ñoom defe naa deux mille cinq 2500 la euh, par ASC bon ñun on rend ça gratuit parce que am nañu mécanisme yoo xam ne normalement structure war na ko mën a gérer te du jël xaalis boobu benn parce que bu ko xeeb parce que ASC yi bëri nañ te situation yi bokkuñu xam nga boo xoolee ci nawetaan dakaar rek da nga naan 2500 du dara mais am na ci ay zones yoo xam ne day compter boobu mooy benn beneen bi mooy quote-part euh, yi xam nga dañ daan def bu ñu organiser match

nga def 800000 boo defee 800000 ci stade bi da ngay jël 200000 euh, yi zone bi moo koy jël ki organisé 600000 yi ngay jël diviser ko par 6 donc ay ASC yi 100000 la ñuy am yow zone bi organisé yaa ngi am 200000 zone mooy représenté structure nationale bi loolu laa wax dañ ñun dañ koy bàyyil ay yi li ñuy généré yëpp ñoom nga xam ne seen public moo ko généré ci jënd billet bu ñëwee organisé liñ fay liñ fay am ñoom ñoo koy séddoo. donc loolu tamit schéma la parce que c'est les premiers pas yi nga xam ñun mën nañ ko def maintenant dañu dugg ci wàllum sponsoring êtes, boo fa nekkee amoo droit am sponsor tant que structure nationale bi autorisé wu la du ASC du zone du département du région bu mën am sponsor tant que cave ci cave, joxu la autorisation donc lolu xam nga day compliquer le schéma bi mais ñun la la sponsorisation bi dafa ouvert tant que ASC zone bi département bi ñom sponsor bi ñuy signé demul à l'encontre de benen sponsor bo xamné nationalement signé nañ ko am nga droit signé ko am nga droit ah non non non non xam nga lutax parce que il faut que ASC yi libre mën dem outil xaliss ñom bu len yalla maye mbolo ñom ñu utiliser mbolo bobu il faut nga bàyyi len ñom ñu mën dem outil xaliss bu ñu ñëw di jouer ñu jël sol seen maillot bind ci seen sponsor loolu mënul jur anarchie parce que ça va être euh, lu normal la da nga koy gis chaque jour yow ci football du la bête, football professionnel tous les maillots que tu vois y a de la publicité et ça ne gêne personne donc nawetaan loolu mën war na mën a am parce que loolu mooy may ASC yi ñu mën a noyyi tamit lé loolu yëpp nag cadre boobu noonu yëpp nag loolu yëpp dañ koy installer pour ASC bi xaw a gën a mën a féex financeiramente.